da ngeen jëf amit téléspectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen nuyu ah di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ah. euh, tey nag euh, wax ju du bari dama dama wër waaji ba jàpp ko ki nga xamante ni mooy jaxase nit ñi ki nga xamante ni mooy yàq diggante yi ki nga xamante ni téléphone am la yor ah, ñëw di xeex ak journaliste yi ah, ñëw di jaxase kër yi problème yi am Sénégal yëpp ci jëmm ji la jógee ak tuuti waaye mais mbay nuyu naa la. yaa ma gën a yaa ma barke billaay walaay taalaay guy gi yaa ma ëpp fit fuuf yow jàngoo <laughs> ah billaay jàngoo arab jàngoo jàngoo jàngoo école. bëgg téye dëkk bi fi nekk nii journaliste si yóbbu <laughs> si boppam su yowoon nañ dem toog yéen seen kayit dem dem dem xanaa xamoo guy gi taay ma wax la. Hmm. ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooy journaliste ñoo ko jàng jàng ko ba am ay diplôme fi ne ñoo ñooy jaay café yi. dëgg jaay café yi. ñooy jaay guro yi ñooy hmm. dawal saret yi. ñun ñi nga xam ne jànguñu tous man jàngu ma jongu ma lu ma wax nit ñi dëgg ko su ma di bëggee saa yu ma bëggee yëngal dëkk bi dama koy yëngal. dëgg la ma yëngal dëkk boobu laay ñëw hmm. euh, sànq ma seetaan benn live muy Ndeye sunu maman ñu ngi koy nuyu baax a baax mbay yi fi ma njëkkee lan mooy sa yoon ci live fu jàmbur ba nga cay dugg. live bi boobu ba léegi maa ngi dégg ay. retour caméra bi ku nekk kilifa bu nekk woon na ma sànq ne ma moytul ma ne ko lu laay moytu ñu ne lu tax yow nga dugg live jàmbur di wax ma ne ko live boobu live su biisu la jabaru Bamba Feeling Dakar. Mhm. live am la léegi. comme si nit ñi li ñuy jëwee di ko wax si suuf man dama koy wax si kaw. Mhm. comprendre nga. Mhm. man man dëgg ci boppam moo may rey dëgg. billaay wallaay talaay au moins li may liggéey ni jarul ma si am tous. Mhm. ah gis naa ay corrompi ba sonn dañ may corrompi naan waxal lii waxal lii mooy du ma wax. Mhm. te des na tuuti incha allah ku ma corrompi dama koy wax si télé bi ne kii mhm. corrompi na ma fan fan ah, billaay wallaay xoolal nekkuma si loolu ay corrompi. man naa dem ay sol ay dàll yu dagg naa sol yër yu xotteeku ñu naan ma dof bi. mi ngi nii fi mu nekk nii. Ah, am na Cheikh borom produit jox na ma otoom léegi fi mu nekk nii. waaw waaw oto waaw jox na ma eh, eh, oto jox ma chauffeur fi mu nekk nii fu may dem oto laay yor ak chauffeur macha allah Cheikh Mm-hmm. xam nga voilà léegi euh, kaaraange bi incha allah même ay kilifa yoo xamante ne tey woo nañ ma ñoo xam mosuñu maa woo. Mm-hmm. ci kilifa yi nga xam ni ah ñoo sës si waali. Mm-hmm. woo nañ ma tey wax naa ñoom si fula ak si fayda. man leen man jëw ma attention xeex ak waali man waali fu ma romb may ma xaalis kon kon loolu du xeex du ma moom loolu loolu yëfam la. waaw yëfam la fu ma romb may ma xaalis fu ma gis teg. waaw yomb naa ko tey tey nii rek mais xam na damaa amul woon jot dama nekkoon ci liggéey moo tax. Mhm. taxaw na sax pour xaar ma ma ñëw. mais mhm. xale yee ko song moo tax ki kiiwu ma. Mhm. yéegu ma. Ah, ah, ah, deew ma taxaw ak moom. aw ma droit sama liggéey laay def. comprendre nga. te encore une fois Wally il faut euh, euh, nit ñi dañuy dóor dañuy dañuy dañuy dañoo wéeru Wally ndax buzz nit ñi. man man man man guy gi kañ laata laa tafu mooy mu bës. kan ah, da xeex de moom. damaa xeex a xeex a xeex a nii ku tudd ku tudd mbay ñu ne mba euh, fu ma taxaw ñu ne mbay. d' accord mbay mu mel nii ni ma la ko waxee sànq ah. gars yu bëri dañu jàpp ni yow danga ñëw pour xam nga humilier Ndeye Gueye humilier Ndeye ci direct bi wala yow da ñëw pour plaider Wally. non non plaider wu ma ko humilier wu ma ko dem dama koy doo ko xam naante la comprendre nga. Hmm. dama koy doo ko xam parce que modér modérateur la. Hmm. parce que euh, Ndeye Gueye soo amee problème ak Sidi Diop xam nga la na dafa war a ñëw semblant tudd ko. Hmm. xam nga la ne ne lim ñëpp lim lim kii loolu mooy parce que Ndeye Gueye bu mu fàtte ne yaayu ñëpp la. Ndeye Gueye yaayu ñëpp ñëpp la mooy yaayu waa géej waa yëpp mooy seen yaay. xam nga la su waxee su su waxee loolu waa ne ànd seeg moom waa day teg ne. booy bi. dil la bu waal ah, teg ah dil la bu waal teg parce que waal mooy def loolu parce que extra une extra boo xamante ne te ñu ah fee si si si soirée bee passé brésilien yi. Mhm. dañ ñu ko doon wax si réew bay ñu ne ah waali moo ko def moo koy def xam nga euh, affaire promotion de album bi. Mhm. moo tax xam nga voilà. Mhm. loolu yëpp dañ ko ñuy bëgg waali nañ nañ nañ nañ nañ nañuy di moytuwul ak waali man dëgg rek laay wax. aw ma woykat. aw ma woykat. ma mbër aw ma faratu fa kenn man sama bopp laa bëgg parce que man maa jëriñ kenn jàppale ma man maa jàpp sama sama bopp sama yaay su lekkee man la man manu kenn sama bopp kenn joof jàppale ma kenn mayu kon dëgg rek laa wax. mais ñu gis ni Ndeye euh, ci sànq ci live dafa mel ni ku xaw a waxee mer comme si que kuy faj mer quoi. dafa doon euh, dàq parce xam na ni. waali moo tay ak xaw ma ak lan loolu yëpp ah, tay xaw loolu nga mën a wax wax moom noonu rek la mën a wax moo tey xam nga parce que instant bi dañ ko euh, humilier parce que moom su narul su su ko warul nga la def ah? bi ko waali bi mu waxee ba pare waali na ko non non non ak Sidi dafa waroon a wax Sidi du mag moom parce que dama ko fee woo téléphone jëlul mag moom aw mu ñu mag wax waaw. waaw comprendre nga loolu laa ko wax pour mu dëggal boppam. Mhm. mais bi mu nee dama koo fàtte waru ko woon wax. Mhm. comprendre nga ñëpp Sénégalais yëpp gis nañ vidéo yooyu. Mhm. Sidi Diop yaa ko ko jëloon sax ñun mu ne vidéo yi Sidi Diop dama koy woo téléphone du jël te man maag moom la woon maa ko yar. xam nga voilà léegi ñëpp seetaan nañ vidéo yooyu kay. léegi kay na na dëgg na dëggal na kii rek ne. na na gën a dëggal rek ne du maag moom waali parce que ko du maag moom rek romb dem. xam nga waa du ko si mere waa du ko si mere xam la nañ ni nañ nañ nañ nañ kóllëre nañ fesante kóllëre nañ wax ak kóllëre. nañ wax dëgg. xam nga dëgg. te man dëgg moo tax du ma am dara su nekkee showbiz bi nii lay demee nii. Hmm. kon du ma si am dara parce que man fu dëgg tànk dama koy wax. mais léegi est-ce que jàppoon aussi waal a rien euh, euh, hmm. hmm. que fu mu nekk nii man bi ma ma dof waali xaw ma ko xaw ma ma laa xam xaw ko. man li may joteeg moom li may li may taseeg moom sax bëriwul. Mm-hmm. at ba at xam naa laay gisee moom xam naa yenn saa ma dem soirée mais du ma sax toog damay liggéey. ci mm-hmm. buntu bi laay taxaw di liggéey xam naa la mm-hmm. mais man soxlawuma ay ay tokkaloog artiste ak yooyu ay mbër ak yooyu bëgguma yooyu. parce que man sama liggéey moo laajul lool. xam nga la mais mais. Euh, Ah, dama damay wax rek ñi kon ah, ah, waale barki démb way na fi way na fi Pape Diouf fooy bu neex. loolu dama ko rafetlu. Mhm. xam nga voilà wutalul boppam noonu kon nit ñi ñi nga xam ne yéenay topp waale bu leen ko wutal noonu. dëgg la xam voilà man dëgg rek laay wax man euh, euh, direct boobu sax du direct du sama direct direct kii la direct bisu Bamba la jabaru Bamba Feeling Dakar. mais dañoo dëgg jaay waxam mu yoon nga dugg ci directam di ko tooñ. non non benn yoon rek tooñ ma ko sax dëgg dëgg laa ko tooñ ma xam nga Sénégal nañ bàyyi naafik Sénégal nañ bàyyi naafik nañ ñi nekkoon si direct bi nañ wax ah, wax dëgg yàlla nag ah. Euh, Sidi Diop sa yaayam nga demal nga demal del dem soirée am comme Souda Bousso Souda Bousso xam nga keroog lu mu wax. waaw sama yaay ji Souda Bousso keroog dañ koo jël moom moo wax wax ju rafet mu ne. géwél day da day ñaw. géwél du du tàqalik waaw géwél famille jàmbur bu si kenn dugg. Mm. xam nga. Mm. seede yàlla loolu yëpp euh, euh, loolu yëpp ah waxu géwél xam nga géwél day modéré xam nga Souda Bousso tata boobu Souda Bousso dafa koo fan. Mm-hmm. si li mu wax noonu. Mm-hmm. xam nga la amul kii kii su fii kii fare fii ndege lan moo ko waroon. ah coow am mu dem mu mu mu dem ah bambaale kii ba xaw a ma ah, ah, ah, Ndiaye ak kii mu wax si lu rafet si nee nañ boole mais keroog li mu def dafa xa dafa xala dafa xam nga wala waaw loolu moo tax bu koy def du du boole nañuy boole xam nga nit ñi Sénégal nañuy boole. di tax ku ku xuloog nit mu dem boole leen ñu àndaat comme lan la ah ma xuloog Kouthia mu dem ma dem ñu boolewaat ma xuloog Yves ñu dem ñu boolewaat. ma xuloog bubsu ñu dem boolewaat ma xuloog seex ñu dem ma xuloog guy gi ñu dem boolewaat mm. Sénégal loolu mais bu ñu wax bu ñu bu ñu wax bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu jaayante quoi bu ñu wax euh, euh, bu ñu bu ñu naafeek naafeek baaxul quoi. est-ce que ñi nga xam ne tamit jàpp naa ne du ma ni staff Wally mais ñenn ñi nga xam ne bëgg nañ ko di nekk ci Wally ba ñu xam leen ci moom est-ce que tamit des fois du xaar du jar tamit ñuy sóoraale comme yi nga xam ni dafay am ñu naan Wally la boo xoolee barki dem événement bi nga xam ne am na fi ñu bari juñ ko Wally est-ce que ñoom ñu ngi sóoraale loolu. waaw parce que Wally instant bi ah ah kii picc euh, ki xoolal soiréem su amee wala ay ay conseil su amee picc yi dañuy ñëw ah naa fekk dañuy ñëw dina dinosaure dañuy ñëw seetaan ci xoolal xul-xulóor yi ñëw di seetaan picc yi di seetaan ñëpp di seetaan lu seet na lu seet na ñu wax lu seet na ñu wax xoolal jaadi sax dañuy ñëw billaay walaay ci jinni jinni yi dañuy ñëw jaadi dañuy ñëw xoolal ñi nga xam ne dañuy sax dañuy ñëw ñëpp dañuy ñëw xam nga wala kon. warul waruñu ko may ñi ànd ak moom waruñu ko may benn espace boo xamante ne Wally da si da si daanu moo tax Wally il a bien dit lan moo tax tuddoo Sidi Diop fii la dëkk. Mhm. Sidi Diop fii la dëkk. Mhm. non Wally nee na Sidi Diop fii la dëkk. Uh-huh. non non Wally nee na Sidi Diop géej waay la dëkk bu ko kenn génn géej waay la uh-huh. xam nga loolu dafa feer. Souleymane Cissé nag day sing single single bu neex tuddee ko waale. loolu laa bëggoon ngi xoolal. jàmm am am mais Sidi sax Sidi Sidi Sidi Sidi Mar day dem foog. waaw na dem foog kay na dem foogu na dem foogu na dem foogu woy woy yu neex xam nga wala seytaane yi mm, xam nga la ah, ñii ne woon du fi am xam nga nu la ko waxee ñii ne woon du am dafay ame léegi nek seytaane yi dañuy def woo ko dox nit yow yow léegi man ba pare na ma wax waxu TFM na ma ay TFM dama fa ah, doon bale léegi man su ma doon bale lu so man man man man man TFM su ma leen bale lool kon kon damaa ñàkk fayda mm-hmm. man Thiès laa dugg doon jaay fëgg jaay mm-hmm. a ah, daan ma tilima tilim aw ma daaw ma am gel mm-hmm. daaw ma am daara mm, xoolal samay exploit yow daaw ma am gel kenn daaw ma nopp man sama tànk di xar ma ñaaw xam nga ñuul kooku di wër léegi su ma ñëwee dakaar TFM accepté ma Ndiaga Ndour jël jël jël sama sama sama jël ma en charge aw ma fu muy lu aw ma fu ma fanaan mu jël ma jox ma appartement si kaw ma naan nga si kaw TFM jëndal ma mat laa xaw ma buy bonde yooyu di bonde noonu xam nga la may may deseeroo ma am nekkat beneen nit nit ñi bëri ma mu boole ma si population sénégalais yi kon su ma ko fu su ma doon menace kon ah, ah, ah, su ma fa doon menace kon kon su ma nangul menace kon. kii c'est eh, man imbécile la mm-hmm. te yow mm, ah, ah, noonu laa def ba ba Kouthia ba ba ma ñëw si Kouthia mm-hmm. ah yow nga xamante ne mosoo nekk est xam ne léegi mosul liggéey TFM billaay wallaay taala liggéey liggéey ba ko jëloon pour mu def Dakar door man li ma xam li ma xam li mu bëree ba pare mu ngay yàq sama der si direct bi. non mais jamono ji bi sama téléphone. ni booy woo ji film Dakar nag Mbaye Gueye ko téye wax dëgg yàlla. mu fi nekk nii moo téye Feeling Dakar. waaw comprendre ngi liggéey liggéey bu nice. xam nga la mais nag na modéré parce que ndéggee yaayu sénégalais yi la mm-hmm. ah, man mii am naa problème ba sonn muy woo sam papa. Mm-hmm. xam nga nay def loolu muy woo sam papa ak sama yaay naan leen mbay nii la mel da ngeen koy yow laa mais nag man su ma di gisee dëgg di ko ko wax mu ma xas xool fi ma xasee na mu ma wax ma ne ma nii de bul ma war a woon ma li may may xaayu sama sutura noonu naan ay TFM TFM xaw ma Madrid laa fa woon xaw ma dañ ma doon euh, isolé te incha allah dinaa billahi walaay taala li nga wax foofu tànk ndéggee tànk toogo toogo Feeling Dakar wax ne mbay ah na ma baal ak billahi walaay chaque jour ma xas la <laughs> chaque jour ma xas la da ngay toog ne mbay ku baax la. ay nit yu baax Ndiaga Ndour da ko foo joxoon cër Kouthia jox ko fa cër Birane Ndour jox ko fa cër ah may doog a seede lu baax may tant que yaa may xas yow yow yooyu ndeke dama xamul a xas yow ma nga maa xas yow. internet bi dëkk bi yëpp ak ma naan mbay mbay mbay mbay mbay nettoyeur mbay nettoyeur waaw soo xool tamit nga xoolaat leen xam ne nettal la baaxul yow yaa ngi nii waaye ñëpp nga xulool ñëpp nga xulool ndéegi bàyyi ñëpp la xulool ñëpp ñëpp waykat yi ñëpp nga xulool fecckat yi nga xulool arrêté il a di di di arrêté quoi. d' accord Mbaye man nag dama nangu ñëw xas sama yaay ji. non non dafa war lan moom mooy xas nga génn si Feeling Dakar suba nga ni Mbaye mën na ma baal ak waaw parce que man maa tooñ man ma damaa waroon a wax Waly si euh, Sidi Diop xam nga wax dëgg nag. xam nga voilà dëgg dëgg dëgg dëgg nag juróomi nopp sénégalais yi ni ngir yàlla bu leen billaahi Ndeye Gueye ah si commentaire yi Ndeye Gueye ngir yàlla guy gi génnee leen vidéo boobu Ndeye Gueye moo taxaw ne Sidi Diop moo jël téléphone. ah kon kay dañoo xuloo ñoom ñaar na taxaw ne du dama xuloo ñoom ñaar ñun ñaar dañoo xuloo duma aw ma moom na ko def wax ak Waly Waly ah. la bëggoon sarxe fare Waly sarxe ko d' accord euh, mu ngi noonu ah gars yi xam naa ni vraiment <laughs> sama waay la nag mais euh, suma yaay ji nga xam ne mooy ndéygee moo koy nuyu bu baax a suma yaay la jàpp ci sama carrière bu baax a baax a baax a baax euh, vraiment ma koy ñaanal série papa yàlla def na ko jàmm Mbaye ñu ngi am mbégte ci dalal la fii people 221 tey lan ngay tàggatoo. waaw euh, di nuyu ñëpp di nuyu ñi ñi nga xam ne ñëpp ñëpp la ñi nga xam ne ñëpp ñooy wax nit lu bon nañ ko bàyyi nañ wax man sama téléphone laa jëm man fi mu nekk damaa am fulla am fayda fi mu nekk nii barki su lay kenn na fu kenn ëpp ma fulla gis nga. sox xaw xamatuma dara man kii nga fi nekk nii lii suñ ma woowul woon billaay walaay taal du ma si du ma sama làmmiñ su ma si kenn du ma gi parce que man damaa weex donc lu xew Sénégal ñu ne ma mbay lu xew Sénégal damaa sonn billaay damaa sonn ñu dem ba nga toog ma am damay toog man léegi damay toog sax mais nit ñi wax ci daf may fekk si xam nga voilà loolu il faut eh, il faut le grand événement yoo xamante ne barki rasulaay guy gi man nit ñi dañ may xas di ma saaga su may dox si mbedd nit ñi di ma woo damaa sonn fu mu nekk sama téléphone amatuma jàmm Sénégal kenn mëntu mëntuma fee am jàmm man il faut mooy ma génn Sénégal billaay damaa sonn damaa sonn torop torop torop torop. d'accord Mbaye. waaw mu ngi noonu ah gars yi kontaan nañ ci dalal ko fii muy sunu frère bu baax nag wax dëgg yàlla euh, dëgg la liggéey bi nag moo demee noonu des fois nga wax ci lu baax des fois nga wax dara jàpp dafa bon mais nit ku baax la. am fu la jom wax dëgg yàlla liggéey laa ko xamee quoi loolu nag dinaa ko seede ci moom ma leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di jox yeneen bi daje ci suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf